Yeah, that's Pani Dof. That's Pani Dof kilo. Jambar faq teud. Tam mo xalen lool nak parce que ni dof bu ko gouvernement bi baye ba bu mu koy jappat musu ko bayyi. Musu ko bayyi. Da musa top. Euh mom ci bopam dem na sax ba xam loolu mais nit bu am fit la nak nit bu am fit dem na ba gis ko dem na ba xam ko bu xamal la ni ni biñ ko bàyyee gouvernement bi da ko topp ñu boole ko gis na am na sax wax nañ ko ci bu ma ko publier après gis naa ko ci quelques médias benn 4-4 blanche lañ ko booleel moo moo ko toppoon sincèrement bu émission yu nit dof def émission bu mu dem palaato bu mu dem oto toppoon na ko 4-4 boobu mu gouvernement bi bu mu defee conférence de presse am bi bu muy dem di def conférence de presse bi 4-4 boobu bu def ay gendarme yu civilu toppoon nañ ko ba muy dem Louga 4-4 boobu nga xam ne ay gendarme civilu lañ ñu nekk brigade bu Colobane toppoon nañ ko buñ ko toppee ba ci Thiès ba Thiès ba route buy dugg Thiès ak buy nga xam ne moom ngay contourner noonu dem Louga ak Saint-Louis foofu lañ doog a bàyyee ni dof ñoom du zap dugg biir Thiès top nañ ko de Dakar à Thiès 4-4 buma ma leen di wax ak ay gendarme brigade euh ki nga xamni mom moy bu Colobane ba jour buñ koy japp si aussi mom yegor nako nak parce que yegal nañ ko motax tax live bu muy def nonu di wax ak Cha sax mu ngi koy wax nan ko gaay yi ñi ngi fi civilu di taxawal sama koñ auto bi dafa garé ci buntu kërëm gaa yi génn di wër boobu moom gis na leen mu même topp biir ville nit taf bu muy dem topp nañ ko euh, jarbaatam bi di dawal nit dof nekk ci kanam ñu topp ko donc gouvernement bi moom dafa nit dof da def dafa defoon noonu bàyyi nit dof bi c'était benn juste benn benn nax tëgg wëndeel bu ñu doon jéem a dalal

au lieu ñu fëgg nit ko bi fëgguñu dañoo ñëw dajji buntu bi pour ngeen yéen ngeen yëg ko yéen Sénégal nit dox buntu appartement am la ñu dañoo yëg ci kaw ci kër gu mu dëkk ci cité Djily Mbaye dajji appartement buntu appartement bi dóor seen pied de biche ba buntu bi dajjee ko complètement ñu dugg boobu yëpp nit dof mi ngi toog moom tamit ak sang froid am parce que nit dof bu mu leen gisee boobu dafa buggoon wàcc

parce que bu mu leen gisee ñu gaari oto boobu oto boobu 4x4 bu weex la bu amul plaque moo topp ni daf bu mu génnee kaso bi ba bu muy dugaat ci kaso bi musu ko bàyyi ay gendarme lañ yu euh, brigade bu Colobane gendarmerie bu Colobane donc ñu dajji bunt bi dugg bu ñu daj bu ñu dajji bunt bi nit daf ma newoon ci appartement bi ak jarbaatam jarbaat bi moo jël nit daf ma mi ngi ci biir toog di leen xaar ci balcon bi boobu mi ngi taxawoon ci balcon bi gis leen bu ñuy dugg gis na leen mu toog ci balcon bi bu ñuy dajji bunt bi jarbaatam bi mu ngi enregistré jarbaatam bi ki doon dawal oto bi jarbaatam la mi ngi enregistré gars yi ñuy dajji buntu këram buntu appartement bi mi ngi toog di ko enregistré bu gars yi dajjee buntu bi bu ñu duggee jarbaat bi la songu nangu téléphone bi jarbaat bi avait tout enregistré ñu nangu téléphone bi bu ñu nangoo téléphone bi ñu dem dugg ci biir commencé fuyeete biir këru Nit Doff ubbi valise yi valise yëpp la ubbi ubbi valise yi yàqate ko wër kër gi yëpp appartement bi yëpp ubbi valise yooyu lépp doog a ñëw ne dañuy jàpp Nit Doff Nit Doff laaj na leen tamit ne leen ba xam da ngeen am mandat d'arrêt gars yi ne ko amuñu mandat d'arrêt amuñu mandat dépo amuñu mandat tous dañ ne kaay wuy ñu def ne leen mais loolu c'est pas normal ñu ne ko sa kaay nga dem ñu yóbbu la boo buggee jàmm boo bëggee rayante ñu rayante fi donc noonu lañ jàppee nit dof jël téléphone jarbaat bi nga xam ne enregistré woon na lépp yóbbaale ko dugg yóbbu nit dof gendarmerie Colobane noonu lañ ko jàppee teg ko fa ba noonu lañ ko defeeree ci kaso bi moom pour ngeen xam ne Nit Doff jàmbaar dëgg la bu doon tapet kon bu mu njëkkee gis oto 4x4 boobu doon ko yàgg topp kon lay bàyyi bu yàgg mais 4 x boobu bu mu génnee kaso ba léegi ba bu mu koy dugalaat kaso musu ko bàyyi la gendarmerie nationale Moussa Fall moo délégué la gendarmerie de Colobane pour ñu topp Nit Doff donc dañ ko mus topp musuñu ko bàyyi ba buñ koy dugalaat ci kaso bi bu defee maximum deux semaine la def ci biti deux semaines yoo xam ne dañ ko cee topp ba bu muy dem Louga bu mu yeggee cees lañ ko fay doo ko bàyyi mu continuer ñoom ñu retourner dugg biir Thiès bu mu ñibbisi waatee ba pare ñu ko doon def sous écoute bu mu ñibbisi waatee bañ dégg ni ñëwaat na dañoo ñëwaat campé wu buntu këram di ko topp donc pour ngeen xamee ko noonu ngeen xam ni jàmbaar fàq tëdd la lépp nag loolu yëpp nag projet bi moo ko jaral projet bi moo ko jaral réussite projet bi moo ko jaral mu doon tey jii vrai martyr de la révolution parce que xajoon na ci biti jàmbaar fàq dëdd la du ragal dawut te da ko ko jaral bu waxtu génn leen jotee wax na ko buñ ko appliqué du ko appliqué wul te ba léegi xàddiwut mu ngi ci combat bi té bu ko neexoon tok di dugal ay financement parce que rappeur bo xamné le bu actuel du rappeur bu bu bu dépassé rappeur le bu actuel suba day guéné sound bu bes tak mom nit def ki la bu tuddu bado la suba ni ko ñepp wut ni ko ñepp am kon rappeur bu actuel la bu ko neexoon tok di dugal ay financement di dugal ay fonds di lekk ay cinq millions di lekk ay dix millions di lekk ay quinze millions te coow di jib bal du tàkk di ko waxee calmement même buy engagé du engagé wu joxe bakkanam day wax engagement calculé di wax ndànk calmement di wax ay wax yu yu ko dul dugal ci kaso ni rien et pourtant amul benn rappeur jamono ji bu ko gën a actuel bu wootee concert stade day fees dell bu wootee concert mbedd day fees dell fu mu woote day fees dell yàlla may na ko loolu te te tey la waalo gën a ay tey la gën a bëgg engagement bi tey la gën a fonk projet bi tey la ko gën a jiital tey la ci teg bakkanam mun nañ ne li mu def ci kaso depuis boobu ba léegi buñ ko génnee ci année bi mooy quatre-vingt pour cent yëpp ci kaso la nekk te bu mu leen gisee ñu koy topp gendarme yooyu mënoon na faa rocceeku bu yàgg wala dem di lekk financement yi dafa ko de donc gis nga am na ñoo xam ni dañu war a dañoo jar a dañoo jar a dafa am ñoo xam nag amuñu respect ci bakkanu doomu aadama yi parce que da gis sax man gis naa loolu nit dof bu ñu koy jàpp am ay dof yu tax waaye gars yi non dañuy jéem a nax nit yi focus mais mais mais ban moo fi gën a ba gën nit dof ban focus des fois am na dof yoo xam ne et puis fen rek la ñuy def kan moo mun a focus àdduna bi focus focus focus fen rek xanaa booy añ da ngay booy reer da ngay focus booy dugg ci douze cabinet bi di day da ngay focus xanaa booy nelaw da ngay focus lan la yàlla bind loo xam ne adduna yëpp da focus focus focus focus focus booy liggéey da ngay focus la ñuy def ñu jàpp ni dof muy xeex bañ jàpp ko am dof yi non gars yi beneen kii loolu focus fii focus focus fan focus fan des fois am na yoo xam ne ay feni kese la benn doomu aadama mënul focus suba ba guddi amul nga tok sa kër ñu wax dara nga rétane sétane sa match football yeewu na ñew ci net bi naan focus nga sétane Real Madrid Barcelone ba mu sa tadi tang nga genn ñew ci internet no focus focus focus lek bu si mbàq fees foo focus jëm day focuso taxawalu focuso tok kat ci caga ji focusoo nga tok bam neex la nga ñew ci internet no focus da mu do dul fo focusé da mu na fenn bu ñu génnee temps bu nga focus mo fofu la nga focus yow boo focusé rek ci net bi la waaw gars yi focus focus daa mën a fen dafa bëri ay fenkat ak ay kàcckat yi nekk ci suñu xeex bi dafa am lu gën focus nit dof xeexu nit dof sa bàyyi da ko def bu ko sa bàyyi defoon ñu ñaf ñaf maamam ci kaso bi ba xam di nga ne focus mais ay dëmm dëgg dañoo nekk ci internet bi ñu jàpp nit dox ak coono guñ ci daje ñu ma fekk ay débat ñu non gars yi focus yii yëpp diversion la focus buñ jàppoon sa baay di nga xam ba xam diversion la ku ñuy jàpp dafa am njaboot nit dof dafa am njaboot dafa ñaari doom ay magum jëmm doome xaram jàpp ñu sa baay moo tax nga fekk ñuy wax waxu nit dof nga ne non non bàyyi leen waxu nit am lu gën nit dof dafa am lu ko gën ci xeex bi ay véritable doome xaram dañoo nekk ci suñu xeex bi Il n'y a pas de problème. de non attendez c'est xeex bi gars qui duñu bu leen ne que ku de mais ñaata ñoo fi nekk patriote ci trahir projet bi ñaata ñoo fi pas ay leader ci Pastef trahir Pastef ki demoon parrainage élection législative yi leaderu Pastef ci Pastef euh, euh, nekk leader ki trahir démb démb ba nekk Touba le trésorier yéen da ngeen foog ni ku ne Pastef rek daa baax quoi yéen da ngeen foog ni képp ku ne Pastef la ay doome xaram la ñu ngi fii naan ñu laan parti patriote lañ ay vrai doome xaram ay doome xaram ñu ngi fii naan focus ay vrai doome xaram te Sonko xam na lool de bu leen foog ni ku ne Pastef patriote rek ñu def la patriote de bu leen ñu fontoo de am na ñu gën a téegal ndey foofu Macky Sall ñu ngi ci ñun topp ñu di duul ay doome xaram ñu ngi fees ci dell ñun kii bërki démb kii kii ànd kii ànd ak Amadou Ba kii kan la kii ki sol lu kii kan la kii ànd ak Amadou Ba nii trésorier Pastef Touba trésorier Pastef Touba trésorier Pastef Touba alors te kii moo leen dàq wax focus moo leen dàqoon dañ ko wóolu ba jox ko trésorier fakk Touba ñu jox ko mu yor Mbàkke nga dëkk di ñëw Touba yore trésorier Pastef bu Touba moo trahir xex na bañ tej ko kaso ndax bracelet électronique danga ko daan pourtant day focus ba xex bañ tej ko kaso deux mois genn ko ak bracelet électronique mo trahir ni mi ni mo trahir pourtant dàqu leen ko waxon focus de bo leen doon wax ben focus fukki focus lay wax bo leen doon wax combattant den ko ci tuddu parce que japp nañ ko fi dugul ko deux mois de prison takkal ko bracelet électronique té pourtant koko trahir à la dernière minute ngeen foog ni ñun projet bii dañ koy jël di ko jox rek ñu ñi taxaw na ay focus non Sonko <laughs> da ngeen di nax seen bopp de on se sait dafa bëri suñu projet bi dafa bëri ay traître bëri ay fenkat bëri ay manipulateur ñu gën a sadik Macky Sall ñi ngi ànd ak ñun dafa am ñu feeñ le ñëpp feeñ lew ndi am na ñu feeñ c'était le trésorier Amadi Diouf, le trésorier de Pastef, Touba, qui a été arrêté durant ces dernières manifestations. a def deux mois ñu libérons. ko takkal ko bracelet électronique quelques jours après il dem rejoindre Amadou Ba quelques jours après Il a nii sol lu Il ak kii yi ñoom ñaar yëpp Pastef lañ rejoindre Amadou Ba ñu dindi bracelet électronique sans procès ni rien <laughs> alors kii moromam yi ñu fees dell ci ñun naan focus naan projet moromam yi fees dell ay juda jaas yu soxor ñu ngi ci ñun bokk ci suñuy rang di yëy di yàbbi ku bu ñu jekkoon un franc trahir ñu waxuma la cent franc un franc bu ñu leen ko joxee ñu trahir ñu barke alxuraan ak ko ñoo bari ci ñun ak ko ñoo bari ci ñun ak ko ñoo bari ñu ay yëfër yu soxor ay yu bono bono bon lekk katu nit ñi ngi ci ñun topp ñu ñu am focus noonu nangam noonu nangam il faut nga am le sens du discernement pour mun a xam ni ñii ay dëmm lañ moo bari ci ñun am na ñoo xam ne waxuma la cent franc un franc boo leen ko joxoon ñu trahir franc ak bëri bëri dooméram ci ñun ak a bëri dooméram mais nag loolu gars yi du ñu ngaaka de gars du ñu ngaaka de donc motax, il faut être conscient ci xex bi bu len don ben ngaka. ay sénégalais lañ ko sekkal dé. du australien du japonais du chinois ay sénégalais lañ ko sekkal Té ñepp xam nañ ni kula la wor ñun ñepp ñun sénégalais lañ Kula wor sénégalais la doon ñun xam nañ ay worante kat yu soxor lañ yu soxor Ñi ñi ngi fii ñi ngi fee bu la ñii di wax ay fokk sa ay kii bu leen leen jàppee sa duñ saponete duñu chinois duñu australien ay sénégalais yi ñu yor jikkoy sénégalais yu yor seen papa yi di sénégalais seen yaay yu namp weenu sénégalais nekk ci société bi bëgg bakkan bëgg lekk alal bëgg joxe seen yaay bëgg jox teral sa baay bëgg nangam nangam ñu liggéey ak fi bari ñu ngi fépp nag daf tekk toog mel ni ñu ci bokk fekk bu ñuy jekku di di bu ñuy jekku di wor ju fi jeex donc ñun du ñuy ngaaka ba ku ñuy gis rek jàppee ko suñu bopp du ñuy ngaaka du ñuy dof mais xam nañ ni ci ñun biir ñun bëri nay workat bëri nay bëri na ñoo xam ne dañuy yokk mais bu ñu jotee dem bu ñuy këf ndawal gi di daw bëri na ci ñun ñun ñëpp xam nañ l'idéologie de sénégalais lu bari ci ñun workat lañ ñu bari ci ñun ay workat lañ ñu bari ci ñun ay workat lañ loolu ñun ñëpp xam nañ ko ñun sénégalais yi ku lay trahir chaque jour sénégalais la ku lay trahir chaque jour sa mbokk sénégalais la ku lay trahir chaque jour sa frère la sa xarit la sa jarbaat la sa jabar la ñu lay trahir chaque jour ñu la jege sa rëkk la donc ñun fii dara du ñu fi bett gis nañ fi Ousmane Sonko euh, euh, lu mu tudd di Zoura Dias Barthélemy gis nañ fi ay leader Pastef yu bàyyi Pastef sàcc seeni parrainage daw gis nañ fi ay leader Pastef ay trésorier Pastef yu daw ànd ak ñeneen noonu kon donc ñun gars yi dañu bëri na ñu ñu rax trop moo tax jamono ji dafa lëndëm ba nga xam ni utiliser sa mind bul bul nangoo doon genn utiliser sa maañ un peu de respect ci say waajur dañoo sonn ci yow de dañu ci yow dañ cee def énergie gis nga li la dundal nii du ñu nga fekk ci internet bi de sa papa ak sa yaay wala say say mbokk ñoo la tàttaan téye la jox la lekk jox la naan ba nga day ni nga dey bul nangu dem fenn ñu manipuler la bul nangu dem fenn ñu saax saaxe la bii ji baaja la bañal bañal xoolal ki ngay xool gunu la ndey gunu la bàyyi bum la manipuler de bum la fooyee de bul doon benn fanatique fanatisme jeex na les kunkandayee la c'est fini ay ñu leen gëmloo ay rêve ngeen di tëñëx tëñëxi da ngeen koy regretter suba soyez ngeen ouvert les yeux ouverts ngeen di use seen mind ngeen di use seen mind parce que après segg bi day am de

et il est en prison il est en prison kan moo ko gën ay taxawaalukat ñoo ne ay focus non bàyyi leen affaire nit def focus non nit def <laughs> kii la rek focus yow boo yeewoo xam ni kii yeewul bu dee yeewu nga xam nga ni kii yeewul dafa am focus bu gën nit def kii ñu topp bu mu génnee ba léegi engagement cent pour cent sa bay sax ñemewul lii li limi def ñi japp ko nga war cee naqarlu mettitlu nga ne non focus nañ wax ci gi focus Papa ndjay nga xamni da ñew pour yàq Moussa Fall salté yim def yépp mu ne Moussa Fall la fi gën jël Ousmane Sonko ne moy joy ci kasso bi Ousmane Sonko la daf ne leader bu ñëpp top leader bu sew bu ñëpp xam bu ñëpp respecté bu nekk ci kasso bi di joy Ousmane Sonko lay wax Ousmane Sonko du keneen ban leader mo nekk fi ban leader lañu top ñun ñëpp ban leer la ñëpp topp di ko déglu gëm ko muy jooy ci kaso bi <laughs> kan la Ousmane Sonko la ko jiiñ Papa Ndiaye ñëw pour yàq ñëw pour sos bugg a jiiñ ne opposition bi ñooy jënd gaal yi di ko yóbbu nga ñëw taxaw toj affaire ba ay ñëw neen non booy bul topp Mollah li muy wax focus boo dee nit nga nga ne kii moo kii kii wir kii ndayam liggéey dafa gën lan moo gën xeex loolu que focus li ngay woowee focus lan la ñuy focus lan la ñuy focus en en réalité focus bu ngay dégg focus focus lan lan <laughs> focus boobu ñuy wax na ma kenn définir exactement c'est quoi focus lan mooy focus est-ce que am na lu yàlla bind luy focus rek di focus focus focus focus malaaka yi ñooy focus ku dul ñii keneen mënul focus ñii la yàlla teg espèce da leen bind ci focus ñii malaaka bi yàlla focus la ko bindee malaaka bi yàlla focus ko bindee yow rek lañ top matin midi soir ci douze booy nalaw booy yeewoo kooku mooy focus leneen lépp ay kàcc la ay entre guillemets focus focus focus focus amul benn importance fenn rek la def lu dul malaaka yi keneen mënu fi focus deux cent pour cent day kàcc c'est juste ay mots yu ñuy xew focus focus fan focus focus fan focus jëm fan focus lan kañ nga focus yow boo duggee ci net bi ngay focus boo fa génnee booy day doo focus booy booy lekk doo focus booy waxaa say xarit doo focus booy time sa caga doo focus booy seetaan match doo focus booy wundaalu doo focus booy dem la doo focus mais boo ñëwee ci net bi ngay focus focus ab nit jóg jiñ Ousmane Sonko parallèlement ne mooy jooy ci biir kaso bi am nit jóg naan day da leen di attaqué nga jóg di xeex moom ay dof ñëw ne waa ji di partagé <laughs> yow kii da lay kii yow focusal yow focus <laughs> Sénégal bëri na fontukat nag Sénégal ak bëri caaxaankat <laughs> xool xamuñu sax les enjeux mondial enjeu monde bi ni àdduna di doxee politiquement

yàlla may na ma muril na ma kiraay bi ba damay gis ni ñii fii ay vrai cinéma man lañ ku la dàq cinéma nga ne ma kii la am danger buy ñëw koo xam ne dañ ko wóolu woon yaakaar ko muy un journaliste gars yi jël ko corrompe ko ci biir kaso bi wax ak moom lijjante ak moom kooku di ñëw ay ne foo misilam di bëgg a yàq nga contrer taxaw di xeex ak moom am dof bu jógee fee kenn kooku partagé loolu mu ne ko waaye bul déglu ko waaye focus focus waaye bul déglu ki focus focus ci lan <laughs> utiliser leen tuuti seen neurones yi tuuti rek mënu leen ko jeexal cerveau kenn du ko lekk kenn du ko màcc pour xalaat la waaye yéen xanaa doo leen jël seen temps toog yéen kese nii bàyyi seen papa bàyyi seen yaay tëju nii di xalaat jël benn affaire teg sujet di réfléchir tak tak tak lii lii ok non non non lii est-ce que mën na ne des fois nga laaj kii du laaj mais yow saa waay loo génne solution yi xanaa yéen amu leen temps boobu booy loolu dafa am solo ci dund de nit mënul nekk nii comme mala rek mala moo dul toog nii di réfléchir bu toogee rek day ruminer yéy lu mu loolu lu lekkoon indiwaat ko xoolal nit day réfléchir nit day toog di xalaat nit day jël ab wax teg ko di ko analise loolu mooy def nit moo koy différencier ak mala mala muy wëndaalu lu mu dégg kii wëndaalu taxawaalu bopp bi cerveau bi mélangé wu lépp ñëw bu tax lekk tëdd nalaw cerveau kenn du ko naan cerveau kenn du ko màccee yàlla da ko def ci bopp day développé wu nag danga koy utiliser muy développé wu utiliser woo ko muy restreindre cerveau genre élastique la danga koy ëf muy màgg nga ëf ko muy màgg nga ëf muy màgg nga bàyyi ko muy peer nga bàyyi ko muy peer nga bàyyi ko muy peer ba jeex tàkk loolu mooy cerveau loolu mooy cerveau cerveau pour use la bul nangoo nekk golowu kenn bul nangoo nekk ngaakawu kenn bul nangoo nekk nit jëla dugal ci loo xam ni yow xam nga ni nekkul cerveau muscle la dañ koy entraîner muscle la day màgg di muscle tey boo jël ay point da ngay ceene boo bàyyee da ngay resal cerveau pour loolu la nit bu yow suba ba amul tànn lu mu xalaat kooku cerveau day restreindre day jeex day jeex il faut ngeen use neurone yi il faut ngeen use neurone am na ñoo xam ni ñi ngi fii nii dañu dem angu mais xamuñu dara ci xeex bi au moment wu am na nit yoo xam ne xool leen xool leen booy bi ñu nekk di ko def mais monde bi dafa metti xale bu ndaw booy kii mi ngi subir enfer kii booy bi kii enfer lay subir jamono ji barke alxuraan démb dañ ko dóora dóora dóora dóora dóor ba booy baa ngi waaj a faatu xale bu ndaw booy bii booy bii booy bii te gars yi ni nga focus focus focus bo bo booy bi ñu ngi koy bëgg a rey barke alxuraan ay mbéj yoo xam ni booy bi démb dañ ko dañ ko martyriser mi ngi nii toog ak ñoom Cheikh Bara booy bi dañ ko martyriser duñ ko dóor ba booy bu ndaw nangu téléphone bi yóbbu yóbbu ko euh, euh, kii criminel une euh, autorité cybercriminalité pour pour mu ubbi téléphone bi tuuti ñu rey ko ubbil téléphone bi mu bañ gars yi dañ ko dóoru dóoru dóor booy bu dóor te booy bi ñu ne dafa bokon ci manifestation yi passé te boy bi tey lañ démb lañ bërki démb lañ koy doog a jàpp ñu dafa bokk ci manifestation yi passé jàpp ko hein? dóor ko dóor ko dóor ko yembal la nekk nag leaderu yëmbal la Kër Massar la moom mooy seen moom mooy seen euh, euh, ku gérer seen xaalis dafa demoon di yóbbul prisonnier politique yi dafa leen demoon di leen seeti jël terre

bu bu yëmbal xaalis cotisation yëpp mi ngi ci kii bi mu ngi ci Wave bi ak Orange Money noonu parce que woowuñu amul réunion amul dara woowu amul convocation booy bi dafa dem prison Sébikotane 17 gars yi ne ko yow loolu la ñuy wër te booy bi mi ngi fi depuis ñu ne ko depuis yële passé lañ lay musuñu ko wër jàpp booy bi yóbbu sóoru xawmal activiste xawma duur duur booy baa ngi waaj a dee ci ubbil sa téléphone sans mandat d'arrêt ni rien mais am na gars yi ñu ngi si biir sonn nañ de xaw ma yëg ngeen xaw ma yëgu leen mais gars yi dañu sonn sonn sonn booy bi tey tey ci suba dem leen laaj waaj laa yëmbal lan lañ dugalee foofu booy bi dañ ko dóor bu muy bëgg a dee sànni ko foofu ngelaw gi di dugg booy bi naan leen dama liw di dama liw faale wuñu ko dama liw dama liw grand doole ma dama liw ñu bàyyi ko noonu ci ci foofu sànni ko ci karo yi booy bi sedd sedd sedd tout il a fallu ma expliqué ay mbokkam ñoo dem indil ko dara pour mu teg ko ci yaram bi pour mu teg ko ci yaram bi dóor ko ba muy bëgg a dee ci ubbil sa téléphone nan lañ jëlee téléphone am sax mooy daa dañ dóor booy bi dafa booy bi bañ de dóor nañ ba bëgg a dee mbéj góor trois quatre di këdd dóor bay bëgg dee booy bu ndaw bi parveniruñ ci loolu ñu jox ko téléphone ba am ay bandi lañ benn instant buñ ko bàyyi ak bi booy bi dafa ubbi téléphone bi di kii rek ñu këf téléphone bi dañoo këf téléphone bi parce que dañ ñoom dañoo muus nag dañoo jël téléphone bi dóor bay bëgg a dee bàyyi booy bi téléphone bi xam nga téléphone boo ubbi booy bi dafa ubbi téléphone bi rek gaa yi téléphone bi dem dindi euh, lu mu tuddati dindi kii bu kii bu mu def noonu jël ko yóbbu ko brigade cybercriminalité téléphone baa ngi nii brigade jamono ji brigade cybercriminalité ñu ngi ko téye di dugg ci biir fekk nañ fa xaalis bi cotisation yo fekk nañ fa lépp ñu ña ngay dugg ci biir di loqati tey booy bi dañ ko mënote yëmbal nañ ko dugalee comme un criminel yi mënot buñ ko jàppee ba léegi yaayam daa feebar bërki dem ba léegi yaayam daa feebar tey tey yaayam dafa bu mu gisee doom ji dafa daanu dañu tuur booy bi ba muy waaj a dee mënate ko toroxal ko wàcce ko yëmbal tey tey xale yi yëpp wàcc ko biir yëmbal duggal ko biir këram di naan dañuy visité xale bu ndaw bi dëkk kër baayam ak kër yaayam ñu jàpp ko dóor ba muy bugg bëgg a dee naan naan dañuy visité kër gi kii kii nga xam ne juddoogul sax kii booy bi kii dafa judd kii juddul kii juddul sax wax xaajul sax juddu kii booy bii boo xoolee xam ne juddul xool leen xool non mais c'est triste booy kii kii juddul kii bu amee vingt ans ci la yem bu amee vingt ans ci la dañ ko toroxal toroxal niñ def ko duñ ko def doomu aadama mënata ko ci biir nit yi comme benn vulgaire criminel indi ko koñam fi mu nga xam ni kenn mësu ko xam ci lu bon kenn mësu ko xam ci sàcc kenn mësu ko xam ci lu ñaaw sa mère était extrêmement abattue ñu indi ko fa dugg biir këram naan dañ ko visite dañuy dañuy dañuy visite de fond en comble moo tax ay nit buñ taxawee à gauche à droite nii di wax ay focus ak di foog yooyu non daf ñuy metti daf gis nga lu ñuy yëpp ci ñenn ñi lay jógee parce que moment yu ñenn ñi di di subir les affres de la république ñii ñi rey seen i njaboot ñii ñi jàpp seen i yi di leen maltraité man man nga gis ay yu toog ci internet bi di foo ak di def lu leen neex ay yu focus no gars xam ni ñii mbugal gi dalagu leen xam ne ñii jàppaguñ seen bàyyi

neexul ci xol nu nu affaire yi di demee nii te bëgguñu dégg dëgg ku leen di fan lañuy ñuy wër damay jël benn kenn ci ay mbokkam asalaamaaleykum. maaleykum def. waaw jàmm dama doon wax ci seen euh, yow yow loo loo bokk moom. waaw moom sama frère la. ok. lu tudd mm-hmm. lu tudd. vrai turam. Mansour Diop Mansour Diop ok ñu naan ko Soro ah Soro lan. waaw Soro le révolutionnaire. d' accord bon dañoo bëggoon nga xamal sénégalais nu mbir mi demee ak lan moo tax ñu ñëw choisir Soro ak nan lañ ko def déjà. parce que dama la dugal ci biir live bi parce que damaa bëgg. mais ça

normal parce que lenn tamit il faut que nous xam ko moom day liggéey kër gi ak frères am ay commerçant lañ frère boo xam la sax place bu mag donc avant tout il faut que les gens sachent cela ñu xam que moom day liggéey avant tout et c'est très normal aussi que xaalis di ci moom yaa ngi dégg parce que la

mais nan la histoire bi demee déjà. nan la histoire bi demee ba mujj ci loxo gendarmerie. voilà barki démb dafa demoon euh, Cap Manuel seeti am détenu yu fa seeti. léegi bi mu demee après par la suite ci la génn doon dem seeti ñi nekk Sangalkam. Sébikotane Sébikotane léegi ci gaar Sébikotane voilà dama jub asafurla Sébikotane léegi ci yoon bi ci lañ ko dogale daal di koy interpeller moom nag il a été très coopératif. ci ci terre bi ci terre bi ah ci terre bi. voilà waaw waaw waaw. Mm-hmm. donc il a été très coopératif après ci la dem mu ànd ak ñoom ñu daal di koy yóbbu après man ci la ma sama frère woo. bi ma sama frère wooyee comme man maa ngi Pastef Medina boobu ñu ngi woon ci affaire parrainage yi ma ne ko ah qu'est-ce qui se passe mu ne ma maa ngi nii brigade ma ne ko lu xew mu ne sóora lañ interpellé léegi ma ne ko ah mu ne ma ah ma ne ko d'accord ma wax ak ñi ma àndal ma ne leen ah il faut que j'y aille parce que sama petit frère bi dañ ko arrêté après ci lañ ma wax ni ma ah amul problème nañ ànd buñ mënuñu la bàyyi nga dem ma ne ah c'est pas grave façon bu ñu àndee tamit dara dañuy dem gis ko rek ñëw après ci laa ñëw ma laajte ma ne qu'est-ce qui se passe quels sont les motifs de son arrestation après ci lañ wax ne que waa gendarmerie Kër Massar ñoo leen envoyé toutes les informations concernant ne leen nañ comme mi ngi nekkoon fii à leur niveau à retard. Hmm. donc loolu après ci lañ ko arrêté ah, après ma ni waa léegi lan moo ñu arrêté ko ñu ne non c'est euh, à propos des manifestations du mois de juin Manifestations manifestation mois de juin ñu ne ah, ah manifestation mois de juin moom doy Nous waar ñu mois de novembre presque. fin d'année ñu koy soog a interpellé ma yaakaar ni boobu ñin ci tuddoon ñëpp jot naa ñu ne ah loolu daal la lool la ma ni d'accord après nag euh, ci la contacté yi mu ñëwee moom sax moo ñu fa jiitu ils se sont entretenus ñoom ñaar après mu génn dem ñoom ñaar ñu daal di waxtaan donc mu ngi noonu mu fanaan fa jour boobu ñu fanaanal ko ba tey ñu ñëw indi ko kër ga ak quatre pick-up ko doon visiter visiter kër xool affaire yooyu bu ñu xoolee après ñu daal voilà après ñu ne c' est pour les c' est pour les besoins de de de de. mais loolu ñaaw na de ni ñu ko mënatee quatre quatre quatre auto brigade yu fees dell ak ay gendarme ci booy bu am 19 ans dugg biir këram nan ngeen ko dundee yéen ak maire beeg noonu nan ngeen ko dundee daal ci ci. Oh, waaw euh, dafa mënu mënu ma la ko expliquer en fait aw ma benn mot bu ma ko mën a qualifier très sincèrement parler. voilà parce que maama maama moom bokk sama yaay boo ko laajee daf lay ne rek amul problème graaw moom amul problème mais au fond moo laa amul benn yaay bu bëgg a gis loolu tu vois amul benn bu bëgg a gis loolu amul benn papa bu bëgg a gis loolu mais nag dañuy sant yàlla mënoon na gën a metti parce que bu fekkoon dañ ko jàpp am na ñu ñu gën a metti ne tey ku xool kaawu Pape Abdoulaye Touré rek ba tey da ngay ne ba tey sax moom kaawam mettiwul non mais door nañ door nañ ko de door nañ ko ba mu sonn nangu téléphone am door nañ ko ba mu sonn sax sonn na de door nañ ko ba mu sonn nangu nañ téléphone am. waaw téléphone bi nekkul mi ngi à la cybercriminalité je pense. waaw si yóbbu nañ ko brigade cybercriminalité fa lañ ko yóbbu dañ ko dóor. te nu ñu nangoo téléphone bi parce que dafa bañoon ubbi code bi ñu bàyyi ko ba mu yor dóor ko ba mu sonn mu ubbi. ñu këf waaw effectivement il a pas voulu donner le code. voilà effectivement. mais il n'a pas voulu donner le donc euh, noonu la moom mi ngi tudd nga ne so Soro. Sora Sora le révolutionnaire. Sora ñu donc euh, léegi gars yi lan lañ ko bugg a toppee. ah li koy toppee c'est à propos des nu mu euh, comment ça s'appelle ça Qui yu jot l'événement jàll événement yi jot a jàll ñu ne moom lañ koy manifestation mois de mois de mois de juin je pense. Non. Mm-hmm, voilà manifestation yi loolu lañ koy toppee donc euh, mi ngi dal daal loolu daal lañ ñu wax nee nañ manifestation euh, voilà non lu ñu ko toppee dafa grave. non association de malfaiteurs. association de malfaiteurs. participation à une manifestation non autorisée. trouble à l'ordre public et appel à l'insurrection. moom lañ à Ousmane Sonko moom lañ topé Diomaye Faye moom lañ topé Fadilou Keïta ñoom moom lañ toppee kii comme mbirum ay affaire terrorisme du caaxaan du ay affaire caaxaan Ça à dire luñu luñ ko luñ ko sëf du du yëfu nit ay association de malfaiteurs participation à une manifestation non lu trouble à l'ordre public appel à l'insurrection organisation euh, euh ma avec euh, le terrorisme si xale bu am 19 ans nga dajale quatre pick-up yu fees gendarmerie dugg seen biir kër mun a ta ko toroxal ko sincèrement boo toogee dégg ci télé yi ñu un benn Papa Ndiaye nee na Moussa Fall gendarme moo gën ci gendarmerie wala moo gën ci généraux yi yu Moussa jaar ci gendarmerie lan lay ça fait ça fait très mal au cœur da ngay xam ne rek liñ naan xiir ma bi dalagu a yàpp bi dalaa dalagul rek waaye fu mu fëkk sa buntu kër ko yaakaar naa ni doo di nga tenir yeneen discours yu dul bi am na loo xamante ni moom pour nga kii ko te moom sax je pense qu'il était le mieux placé pour xam ko ndax moom am na fu mu jaar ak ñoom après nag derrière ce qui s'est passé euh, doo xam ne daal doy na waar daal waaw bu yow mii nga ni dafa mel ni sénégalais sax ñoo bañ sénégalais au fait sénégalais ñoo ah, ah, yaakaar naa de boo toogee tamit ci net bi gis ay nit yu toog nit yi nekk ci digg xeex bi am ñu ci dee ñii ñi leen di toroxal ñii ñi leen tëj ñii ñi leen di topp seen biir kër yi di di leen maltraité que dafay ñaaw nga gis nit yi nekk ci internet yi nañ ñoom Pastef la ñu bokk wala ay patriote lañ di nekk di foo ak a caaxaan lan la lay def tamit mais ça au fond dañuy laaj est-ce que ay nit lañu très sincèrement parler tu te poses des questions à savoir ndax ñii ay nit lañu très sincèrement parler wax dëgg yalla ça fait trop trop trop extrêmement mal au cœur vraiment man mënuma mënuma mënuma sax expliquer c'est ben, wóor na yàlla mënuma à un moment donné da ngay dem ba da ngay ne man téema génn dëkk bi man téema changer nationalité mais bo togué xalaat nek da ngay ne non parce que du lolu moy faj mbir mi Mm. très sincèrement parler parce que en réalité dafay mel ni ñun ñun jàkkaarloo sax loolu lañ bëgg et te ñun leen may plaisir ñun waruñu leen may plaisir boobu noonu euh, moo la dëkk Sénégal du royaume ba kenn di ko donnante réew mi suñu réew la boo gisee jeunes yi yëpp di fipp ku ci nekk di jël gaal gi ñii di jaar fii ñii di jaar parce que seen dëkk dafa neexul ni olof naan kuy wàllu yaan ku ne sa dëkk bu neexee xolal fii la ñuy toog di ko tuur muy daanu mu neex ci ñun ba bëgg a dee duñ dem fenn di ko fa wuti ñun ñëpp mhm. loolu lañ bëgg qu'on te dise la vérité. mais nag kaay ma xamal la nag gis nga Olof Njaay nee na suul suul ker du ko teree feeñ ñun ragaluñu tiituñu dawuñu daayuñu daxalal nit duñu xoqatal te xuux duñu tax a daw. Mhm. bu ñu doon ay ragal ba tey dem nañ parce que façon xoqatal bu nekk dund nañ ko te xolal terewul tey lañ gën a déterminé. li ñuy hmm. def nii ça ne fait que renforcer notre détermination par rapport ak li ñuy xeex par rapport ak notre combat waaw hmm. merci beaucoup merci am na solo am na solo dinañ suivre affaire yi man maa ngi am ñu may déggante foofu ñi ngi suivre affaire yi lépp luñ def lu ñaaw wala di ko dóor ak yi ñuy def yooyu yëpp ñun ñi ngi suivre affaire yi parce que am nañ fay nit te am na nit yu baax tam ya fa nekk malgré ñu ngi def ay affaire yoo xam ni parce que même ñu ñu jiitu boo leen waxee sax lu tax ngeen def lii dañ naan dañ ñu koo sant donc ñoom ñëpp dañuy liggéeyal Macky Sall bu kum dóor Macky Sall moo leen dóor leen ku ñu ligote Macky Sall la ko wax donc li ñu leen di def yëpp Macky Sall la leen ko teg moom moo koy santaane. ba ci généraux yi leen jàpp ak colonel yi leen jàpp ak koo ci laaj danaan la man dañ ma ko sant. donc moo tax ñuy woo sénégalais yi ci fulla ak fayda ci jom. ak fit bañ a jël mbir yi def ko yëfu caaxaan foog ni ay dëgg nañ wëndeel nax nañ Macky sàll foowee nañ koo affaire yi day ñëw yomb da leen koy may sur le plat dañuy ñëw rek def lu ñuy def pare naa 10 millions ñëw jàll ca nuñ ko foogee ak li nar a li leen fi fekk ci kanam moo bokkul moo tax ñu leen di woo ci am leen fulla am leen fulla am leen fulla am leen fayda am leen jom taxaw leen jëmmal leen seen bopp waajal leen seen bopp te bañ a jël mbir mi ay mbirub caaxaan bañ a jël mbir mi foog ni da koy for wala da dañ leen koy may bu for yombee sëgg jafe nit yaa ngi sibir nit ñi ngi leen di toroxal ñi ngi leen di maltraité di leen malmené di leen rey di leen dóor xeex bii dafa sori dafa yàgg dafa metti doon nañ bàyyi diversion yi bàyyi caaxaani yi bàyyi réew yi bàyyi caaxaan yu metti yi ak kaf yeek ñex ñex ñex yu metti yi te xam ni ay nit ñi ngi ciy dee ay nit ñi ngi ciy gaañu ñu Macky Sall ñu continuer di torturer doomu aadama yi voilà donc ñu xool yëpp a tooy ko waxul xool yëpp a tooy moo laa parce que fii ku ñu jàppul sa frère jàpp nañ sa dëkkandoo mbaa sa mag mbaa sa rak kenn koo xam donc kan ku ne ku ne sa xool dafa neex rek sa xol sa xol da ngay wax lu la neex ku ne sa xol dafa neex rek da ngay wax lu la neex waxuma la dara waaye tey rek bi ñu demee allo. waaw ah, vas-y vas-y. Hmm. voilà parce que tey paa yeeg mère yi ñëpp même chose lañ ñuy wax sonn nañ sonn nañ ñëpp foo toll ñu ngi kaas. cherté vie bi ma moo laa dafa metti Sénégal dafa dafa metti gis nga nit ñi dañoo am jom rek di demee sax ak sutura mais dafa metti metti boo xamante ni foo ko natt rek weesu nañ ko fu boo ko natt rek wees na ko donc comme ni ko waxee su ma toogee gis ñenn ñi jël affaire yi à la légère di ko foowee di ko damay ne mais attends mais ñun xanaa ñaari Sénégal lañ am ñii fan lañ nekk di dund en fait ñii fan lañ nekk di dund wala c'est des gens yoo xamante ni ñoom dañuy xëy rek ñi nga xamante ni dañ leen yoral ndékki añ reer dara waru leen ñoom ils savent pas ce qui se passe wala ils sont au de rien mm-hmm. mënoo da ngay ne ñii ban Sénégal la ñuy dund xanaa dafa am beneen Sénégal ci biir Sénégal waaw c'est vrai de boo leen di yee ci ay réalités yi sax am na ñoo xam ne nalawkat lañ dañ mooy bu may nalaw bul ma yee am na ñoo xam vrai nalawkat lañ ñoom bëgguñu ko leen yee quoi ci dara ñoom ni ñu toog nekk ci ay rêve foog ne affaire yi leen di yomb foog ne affaire yi waa dem wuti parrainage la dajale lépp ñëw après jàll comme du xam nga mu yomb ci ñoom amul xe amul xuloo après dem kii après gagné ko dem c'est que rêve boobu moo dafa facile ci rêve il faut nit yi xam ni barke alxuraan tey la gën a metti tey la waalo gën a ay il faut gars yi doublé doublé dak ci fulla doublé jom ji doublé fulla gu day ni xool Macky Sall bu leen xool du leen yàpp bu leen xoolee du jël seen i parrainage yu ñuy tajale ba sonn sànni ko ci poubelle yi bu leen bu ñu xoolee xam il faut ñu wane fulla ci seen bopp la fulla la mat sëkk ci seen bopp buñ ko deful dañuy ñàkk ma yi ñoom sax ñoom sax waxal nañ ko seen bopp parce que barki dee mooy jaay waa ji vidéo bi mu def toog di wax ku ko xool ñëpp ñu wax ah kii de daf ñoo mer koo may benn fenn fu mu ah, ah, wala da ngay caaxaan ah. xam nga yow ñoom xool nañ ko ba xam ne kii caaxaanu léegi ku du caaxaan di nga jàkkaarloo moom di caaxaan kooku di nga yaakaar ni li ni bën bëdu puso wala lu ni tafatal ay ni di la ko may hmm. waaye dañ nekk ay nit merci beaucoup kontaan nañ jërëjëf toute façon fu ñu ci toll rek yow nañuy connecté wu fu ñu ci toll dinañ la wax yéen itam loo leen ci am rek ñuy waxtaan ci quoi ni le combat continue. merci. jërëjëf jërëjëf. d'accord inchallah. donc euh, gone gu ndaw bu ñu jàpp nii chaque jour ñu am ku ñu jàpp chaque jour ñu am ku ñu torturer chaque jour ñu am ku ñuy torxal chaque jour ñu am ku ñuy kon waa jooju bandi boobu di Macky Sall di wuyu bi musul bàyyi te musul taxaw ak ñun ci ay foo ak ay kaf il faut que ñun tamit ñu am fulla double fulla double fayda wan ni mbir mi dañ ko bëgg mu wan ni mbir mi jaral nañu bakkan wan ni mbir mi jar amul cest ay wane sax ni ñun non duñu xeex duñu loolu waxu waxu du wax bu baax c'est que di dañoo comprendre wan ni ñu non ñun xeexuñu non ñun xeexuñu gis nga gis nga nit nit bu jóg sax pour toroxal la nga wane ni xeexoo mu day avancé nit day avancé xanaa nit bu ñëw pour xeex ak yow ñëw fëgg sa buntu dugg ci biir yaan man xeexuma day dem ne day ñibbi du ñibbi day gën a accéléré. Macky Sall du koy xam ne day ñëw na la damay nañ xeex nga ne ñun xeexuñu mu bàyyi la noonu ñibbi déedéet day gën a dugg day gën a dugg nag. moo tax am na yoo xam ne jarul sax wane ay ñun xeexuñu ak no te sa fii lañ yemagum bés bu laajee xeex dinañ ko def Ousmane même dans le discours de Ousmane Sonko c'est comme ça danaan la dama grève de la faim. arrêté naa bu ko laajaatee bu laajaatee circonstances yi dama koy defaat mais j'aime bien ce discours là dafa bëri ñu topp Ousmane Sonko dégluwuñ ko ak xel dañuy tëñëx tëñëxi même Ousmane Sonko tëj yi lii moo la lii la laaj dama koy def bu ko laajaatee ma defaat ko donc kenn du daw responsable da nga naan lii la laaj maa ngi koy def mais Macky Sall dawuma de ragaluma la dawuma téetuma te bés bu laajaatee bés bu laajee xeex dina xeex mais doo ko won ni non xeexuñu ñun xeexuñu mel ni ab tàppet buy taw foo taw jëm ñun xeexuñu xeex lay wut ñu xeexuñu boo xeexul léegi bu defee li mu bëgg a def nag di nga xeex wala doo xeex léegi bu defee li mu bëgg a def moom di nga xeex wala wala doo xeex wala jeex na c'est fini dans ta vie dootoo xeex ah kon kay yombalal nga ko mbiri boo ko wane ni dootoo xeexati lu la des sa àdduna yombalal nga ko mbiri ndax da koy continuer di ko def yow yaay perdre yaa xeexut mais moom da koy def

Mangi une grève de la faim nous grève de la faim bon la ñuy xam ñan vrai vrai vrai grève passe ñu pastéfien on boo xoolee 1% 1% grève de la faim bu ko neexoon wax mais assumer La population top ñu grève de la faim pourtant on nañ nañ grève de la faim bi wala def boycott la tara lu mun a xeex bu bu gën a yaatu la donc bu demee ba ne lii ma def nii daf ko laaj ma def ko te bu ko laajaatee ma def ko donc doo doo ñëw da ñëw ne nit ki li ngay def tant que koy def bés bu laajee nag gis nga buñ demee ca cappaandaw ga <laughs> buñ nee du ñu xeex ñu ñàkk rek ñàkk de parce que moom lu mu jógte mooy éliminer képp ku nekk Pastef léegi imaginez vous mu éliminer ñi nekk Pastef ngeen ne doo xeex kon fi forcé wuñ fi kenn dañoo bëgg ngir yàlla sérieux ci li ngeen nekk dañ leen di ñaan ngeen sérieux ci li ngeen nekk li ngeen nekk bëri na foo trop bëri na sabotage yéen a ngi mel ni man xawma ku leen ko gëmloo quoi xawma ku leen gëmloo ni yéen a gañe daal da ngeen waaye non dañ koy kii non kii non affaire bi jël ko yombal ko jël ko yombal ko fekk gàtt sa gàtt la ñu wax ñu ñaawal gàtt sa gàtt lan mooy gàtt sa gàtt sa si léegi fa laay tëjee dem lan mooy gàtt sa gatsa sa gàtt sa mooy boo ma dóoree ma fayu gatsa gatsa du may tooñ di la dóor déedéet ñoom dañoo jël gatsa gatsa ñaawal ko ñaawal ko ba léegi sax pacifiens yi bàyyi nañ gatsa gatsa kenn du ko waxati il sont forts en manipulation gatsa gatsa wolof la mooy boo ma dóoree ma fayu la loi du talion Ablaye Wade wax na ko boobu Sonko sax waxagu ko ay force de l'ordre yi leen ma sax déglu leen ma bu ñu yaree seen bu ñu yoree seen canon ngeen yore seen seen vélo bu ñu yoree seen i euh, malikuli ngeen yore seen i xaar ndax man maa leen wax ku leen door na ngeen fayu ku leen door na ngeen fayu loolu kan la du Ablaye Wade son discours la mosu ko dégg mi ngi suñu album bi kooku mooy garsa garsa garsa garsa mooy ku la door na nga fayu kooku Sonko créé wu ko wolof la garsa garsa avant moo judd sax am na garsa garsa mooy bomu ma ma fayou foo ma woomu te foo nam ma nefa lolou moy garça, garsa ñu jël ko def ko garsa garsa jël ko def ko appel à l'insurrection <laughs> garsa garça n'a rien à voir à appel à l'insurrection garsa garça, moy résistance boo doré me résiste fayou fayu moy garça. garsa garsa ñu def ko appel à l'insurrection ñom wër média yi duggal ko ci nopp gaay ba ko ba kenn amutul sañ-sañu doo gisatoo ko fenn doo gis patriote bu bind léegi garsa garsa c'est fini ils l'ont diabolisé manipulé jaxase koo def ko mu tudd garsa garsa égal appel à l'insurrection garsa garsa égal génn leen ñu rey leen garsa garsa mooy dañuy tiire seen kaw garsa garsa mooy dañ leen di rey te du am enquête garsa garsa mooy léegi bu ñu wax ñu ne Sonko dafa woote garsa garsa Sonko dafa woote garsa garsa mais ku wootewul garsa garsa looy woote buñ lay dóor doo fay Sonko dafa woote gatsa gatsa mel ni mooy Sonko dafa woote ñu taal dëkk bi dégg gatsa gatsa mooy ku la dóor na nga fayu Ablaye Wade da ko wootee avant Sonko di taxaw te Ablaye Wade bu koy woote jamono Abdou Diouf la fulla ak fayda fulla ak fayda da ngay gis ñaar mooy légitime défense da a gis ay ñaar gis nga gars yi <laughs> maa ngi gis benn waaye naan ko mu naan focus xaw ma deux mille vingt quatre ko focus ci lan <laughs> du la ko wax de du la wax focus ci dara focus bu njëkk bi focus sur la candidature de Ousmane Sonko la woon loolu effacé wu moo tax ma kenn wax nangam tan ndayam focus parce que focus gi taxone ñi wax moy sur la candidature de Ousmane Sonko ngeen nako ko war ak mu daanu moo tax ma ne bu ma kenn wax man nag maa laa de du ma ngaaka de tam chaque jour ma koy wax dama ne ñu may déglu dañ xam ne jàkkaarloo wu ñoog dof jàkkaarloo wu ñëw ngaaka ku ñu ku ku ma woo ci débat di nga wax lu set wecc barke ku ma woo ñime naa bépp sénégalais bu taxaw di wax ci débat ku ma woo ci débat di nga wax lu set wecc doo ci génn moo tax jafe na ma dem ci télé nit paqueté ma dem yoonam ku ma woo ci débat billaahi dinaa la laab ba nga set ak noo mën a ñëwee dinaa la laaj ba nga ci kanamu sénégalais yi man duma ku ñu foowee bu focus bi lu ko indi woon mooy focus sur la candidature de Ousmane Sonko aux élections présidentielles 2024 focus boobu ne farax faxasu moo tax ma leen ku ma netti focus ah, mais fu ñu focus jëm c'était pour la candidature de Ousmane Sonko loolu moo indi woon focus bi ñu bàyyi mu daanu après ñu mandé seen carrière ñëwaat naan la focus ci la ci lan nan la ko wax ci lan focus day sur la candidature de Ousmane Sonko aux élections présidentielles 2024. mille vingt indi won focus bi lolou mo indi won focus bi phrase bobu dindé ko sur la candidature de Ousmane Sonko aux élections dindé ko focus ba sey kou la koy wax dalay fowé dou la wax mouk focus sur quoi focus 2024 sur quoi xanaa mu changé ko moo tax ma ne la man dama ne dama respecté sama papa ci njureel doomu aadama du ñëw Sénégal fii fekk ma ci débat d'idée di ma paqueté di dem di foowee ma dem yoonam léegi da ngeen koy changé kay ne focus sur Diomaye Faye focus sur le plan B focus sur le plan B ñu da koy yeggali focus sur le plan B bu amee C ngeen ne focus sur le plan C ñu xam ni yéen a ngi dem yéen a ngi jóge ci A di dem seen yoon mu leer nee naa leen du ma doomu kenn du ma coggu kenn du ma jàgg kenn du ma musa nangu ci àdduna billaahi di bàyyi samay samay principe di dem di taxawaalu ji comme xar foo xam ni dañ ma fay jox ngooña ki cox lu leer naññ lu dëggu dama bugg ànd ak ay nit ci ngor ci jom ci fulla ci fayda lu ñu wax ñu koy assumer di ko demee Vous changé nous xam ne ñun ñoo changé mais bañ ko jël di wéer ci nit ak di sosal nit ak di fen ak naan noo kii arrangé tuñu parce que yow ya trahir wala yow ya bàyyi li nga waxoon yow yaa dem ci leneen il faut se plier à la décision populaire loolu Ousmane Sonko def Ousmane Sonko s'est plié à la décision populaire plan A la waxoon la candidature ñëpp génn wax population bi vous faites que c'est plié à la décision populaire je me suis plié à la décision populaire il faut que ça soit clair la population veut ñu nous, nous nous plié nous ñu plié ak ñoom duñ leen pas. trahir dañuy topp en train Nous ak que ci xeex bi ne la ñu nous ak nous ci ko Si rek mais lu indi woon focus bi lan la kon bu mu tàng-tàng ba yàgg-yàgg ba ngeen bugg ñu foowee ñenn ñi ñëw di ñu jéem a nax xaw ma lu ñu lekk ba foog ni war nañoo mun a dribbler wala bu ñoo foowee focus bi lu ko indi woon mooy sur la candidature de Ousmane Sonko aux élections présidentielles 2024 et qui dit le contraire kan mooy wax lu indi woon focus bi ban la et eh, dites-moi bien ban pas dama soxla waxtaan man Je wax la focus bi bu muy là, lan la là. ban focus la soyons très rationnels. j'ouvre ce débat là lan focus bi focus bi ban phrase la andalon. on ne peut pas se focus sur ce projet projet bu taxawagul focus projet ay nit projet mënul demal Bopam. projet kan mënu ci focus projet ay nit ñokay porter. nit yi bu projet bu du porter wu ay nit ñokay focus sur nit ki mo projet bi <laughs> sa saret du fas du fas focus sur Ousmane Sonko président 2024 focus bala nga dem ci projet nit ki dem saret di jitu fas Muno focus ci projet te nit ka nga bàyyi fa nit ba nit ki mo yóbbu projet projet dañ koy porté projet dañ koy porté ci ku gëm projet moy porter projet ñi gëm projet bi créer projet bi buñ porter wul projet bi kuy porté projet bi projet dañ koy porté projet du demal bopam du nit dañ koy yobale projet Mayenne la ku ko gëm moo ko yóbbu ku ko gëmul du ko yóbbu boo jëloon projet bi jox ko ab nit bu bu bu mu arrangé wul du ko def oui la charrue avant les bœufs tey boo ma joxoon projet bi te gëmuma projet boobu du ma ko porté donc projet da koy jox ku koy porté projet bi projet Pastef la waaw Pastef ñoo ko porté Et qui a adhéré à l'idéologie pastéfienne. Pastéfienne. Nous a porté le projet. Donc, ce que je veux dire C'est moi, full faïda. Gaï, 0 0 0 0 0 diversion. Barque Al-Horan. Tout est fait pour que nous am na ñu ñu gaañ am na ñoo xam ne seen loxo am na ndeysaan ab ndaw gu may yónnee amul sax projet protège protège lay laajte protège lacrymogène moo kii moo explosé ci loxoom loxo ba dagg ab benn booy protège sax amu ko protège lay lay ñaan rus naa sax dem ci Sénégal yi ne leen jàppale leen booy bi pour protège xale bu ndaw di ñaan protège ci xeex bi la la la loxo bi daggee loxo amul sax lu mu jëndee protège seen famille yëpp contacté ma yónnee ma fa lëm sama yaram sax dafa daw facture beeg tout pour protège rek protège barke alxuraan rus naa ko sax wax sénégalais yi et pourtant ci combat bi la loxom daggee parce que bugguma ku ma gàntu rus naa sax ñëw ci kii ne la yi kii day patriote la pastifien la da xex ba loxo ba loxo ba këppatiku ci euh, ki bu mu don jema for naan da ngay sànni mu ci loxom li yeb dag lepp baram yeb naw amul lu mu jende protège ay param son di xale bu ndaw rus na sax ñew wax ko sax gaay ñu sofantal la wala gantal sax que fii ñàkkuñu dara ñàkkaguñu tous te waruñu ñàkk nañ ci gar suñu bakkan nañu jaral lu ne nañu jaral lu ne zéro diversion zéro diversion zéro caaxaan gars yi nañ yokk ñàngaay bi nañ yokk ñàngal gi nañ gën a fas kanam gi nañ gën a am fulla ak fayda fulla ak fayda fit farata fulla fayda fit farata fulla fayda fit farata fayt fulla farata fit fayda fayt fulla farata fit fayda fayt yokk leen na ñaq yi Même won pas waa ragal on a tàppet te reculer Barque alxuraan on a reculer projet bi dañ ko porté te dañ ko lañ ci président nous dit ñun choisir fulla fayda farata taxaw jëmmal suñu bopp moo am solo bàyyi diversion règle métti gi sabotage bi lijjanti fulla ak fayda naaj bi tàng na leader yi sonn nañ mbedd mi metti na gaa yaa ngi topp big ak fooy yi ci ngelaw gi ci mbooy gi di bind tur yi kon gis nga Macky sàll du ko naax saayal barke alxuraan billahi sañu coono gii tàngooru mbedd mi poussière bi mbooy gii ñu yor fiche di rëdd di bind di teg barke alxuraan conseil constitutionnel dooguñu ko caaxaanal billahi du ko naax saayal wallahi la du ko naax saayal kooku ñu ngi koy xamal Macky Sall ak i ñu ngi koy xamal Badio kamara ak Cheikh Tidiane ñu ngi koy xamal waa conseil constitutionnel ne barki alxuraan billaahi suñu coono yii mooy suñu noflaay suñu coono yii duñ ko seetaan kenn di ko naax saayal kenn du ko naax saayal loolu ni ngeen ko yëg loolu na ngeen ko def seen bopp yi loolu na ngeen ko xam ni doo leen ñëw def fi élection sans Pastef loolu mënu fi am loolu te du fi am tey te du fi am suba Les enjeux sont énormes. Les enjeux sont énormes. Trop de morts. Trop de sang versé. Trop de blessés graves. Trop d'emprisonnés. te kenn attewuñu mbay mbiram kenn taal est sama kër ba léegi jàppuñu nit la ñu sànni ko këyit yooyu noonu avocat bu ma wutoon ne leen topp leen dañoo dem ci bureau procureur mën leen këyit yi réer na parce que man la parce que bokkuma ci ñoom ñu ñëw fekk sama baay di nalaw sama yaay di nalaw samay tante di nalaw samay frère di nalaw samay sœur di nalaw seeni doom di nalaw ay liir di nalaw ñu asma di nalaw ñu wërale ko pën a taal leen ñu ñëw def seen constat def lépp police criminelle ñëw ñu def lu ñuy def moo wut avocat avocat ba dem di leen wax dossier bi ñu ne ko réer na bureau procureur secrétaire ba ne ko kayit yi réer na noonu laa ci mujjee man est-ce que man dina ma neex ma toog gis leen ngeen di foo yéen parce que damay xam ne taaluñu seen kër fekkuñu seen bàyyi muy nalaw ñu embuscade ko dóor koy pëna enchaîné ko ko ne tàkk leen yéen ñëpp que man dina ma neex ma toog leen gis ngeen di projet bi wala ngeen koy defee ay naxas ak xandang di ko caaxaanee ku ko defoon sa papa dina la neex yow te maa ci gën a tuuti la feebar ba suñu jonn yàlla de jàpp ñu nit te association bu mag ko def ay ñoom ñoo ko def ak seen i oto association de malfaiteurs duñ ko pën wër sama kër ba mu teg bopp ba kenn sotti essence ci buntu ci buntu fenêtre yi ci biir buntu kër gi taal ko suffoqué suffoqué sama papa suffoqué sama yaay rey ñëpp kon affaire yi du caaxaan jàpp Dame Mbodj ak otom topp ko tiire ko ay balu fetal ay impact de balle ba léegi jàppuñu picc parce que dàmb Mbodj bokkul ci ñoom picc ay bal loo xam ne ci tele lañ ko doon gisee dóor ko ay bal plus de sept balles yu impacté di romb vum bëggoon ko def nuñ def maîtriser bëggoon ko noppiloo ndax jekkoon nañ ko bu ñu ko bëggoon rey rey ko dañ ko bëggoon noppiloo fu ne ñu tiire fa mujjul fenn picc jàppuñu ko ñu rey dee deux mille vingt trois ñu rey plus de quarante xale yu ndaw de seize ans à trente cinq ans amul benn enquête taal sama kër waajur amul benn enquête jàppuñu kenn taal oto Cheikh Baara Ndiaye ba mu takk jeex. amul benn enquête jàpp ñu kenn dugg këram toroxal ko jàpp yóbbu amul benn enquête mujj fenn rayati ay nit bii passé plus trente et quelque mu tem quatre vingt amul benn enquête rey Fulbert Sambou un militaire amul benn enquête jàpp kenn rey Didier Badji seyal ko amul benn enquête jàpp kenn rey François Mancabou rey bu ñaaw ne am nañ vidéo treize minutes amul benn enquête jàpp ñu kenn ba ñu mujjee rey di jàpp di tëj di jàpp di tëj di torturer mais yéen dëkk bi dafa dafa metti dëkk bi dafa metti nit yi dañ sonn jooy famille yaa ngi yuuxu famille yi tas nañ famille yi jaaxle nañ même kaat-kaat boobu di ñëwaat sama kër di topp sama grand frère ba mu ba mu génn fa di ko topp matin di ñëw ci station essence bi di laajte taal sama kër continuer di fa ñëwaat di fa ñëw di indi kaat-kaat bu weex boobu noonu di fa ñëw di wër sama grand frère bi di di laajte ba mën a ko génnal foofu bañ ko defee ba suñ jonn yàlla te sama kër nit nekkatu fa bañ fay ñëw di taal ñaataat na barke alxuraan sama kër tas na bu yàgg barke alxuraan kenn nekkatu fa ñu nekk kaw Kaolack mën nañ dem xool trois personnes nekkatul sama kër ku dul paa bi màgget mère bi magget tante bi ñoo ñoo fa des ñëpp daw nañ ñëpp ñëpp parce que ñu ngi dañoo ñëwaat. di leen topp sama frère yi ñii seey ñii jaar nii ñii kii taw dem Nicaragua ñii ñii jël gaal gi ñii taw kenn desatu sama gaal kenn kenn kenn desatu sama gaal ak nit taxawatu fa ñun li ñuy daj dafa dafa metti lekkatuñu naanatuñu nalawatuñu te mënuñu wax kenn suñuy naqar taal lañ sañ kër tas nañ sañuy njaboot mënuñu wax kenn suñuy mettit mënuñu ne parce que mënuñu ko jooy parce que buñ koy jooy bu ñuy jooy xoos-xoos fekk fa ay góomu deewaale amuñu sax fitu ñëw ne leen est-ce que xam ngeen ni ñii ba ba léegi bàyyi wuñ ma est-ce que xam ngeen ni ñii ba léegi ñu ngi may topp est-ce que xam ngeen ñii ba léegi bàyyi sama njaboot picc nekkatu sama kër gudul sama papa sama yaay sama ta ay màgget nee naa leen dem leen rey ñooñu dem leen allez-y ñii ñoo fi des comme raykat ni dem leen ray ñii mu jeex dem leen ñi ñi romb nañ seen seen 60 ans dem leen ngeen ray leen benn booy góor nekkatul suñ kër boo yëpp a seey yëpp tasaaroo ñiy jaar góor ñiy jaar droite ku nekk ku nekk nga laxatu et vous pensez que ñun dañu nekk ci xeex bi nekk ci nii rek di tamba baaloo ko wëndaalu

di tëj nu ko neex di tortir mais ça mais trop c'est trop mais trop c'est trop mais des fois du gars comprendre sax lu tax ñuy génn di tàkk des fois naqar yi ñu am suñu xol dama xam ne bu ñu génnee di tàkk dëkk bi day tàkk moo tax de non waaye billaay torture mentale bi nu ñuy daj ñu lu ñuy daj ci kaw suuf fii moo tax des fois damay génn di takk di na noo xam ne ah ba gars yi naan kii dafa dof quoi parce que man lu may daj ñoom dañ ko dajul moo tax mënuñu ko comprendre li may daj man si sama chair sama fort intérieur dajuñu ko moo tax bu ñu leen di wax duñu sax comprendre dañ naan kii tàkk na wala kii naan fekk mu ngay génn di saaga parce que li ngay daj la lu ñuy daj la ñoo xam ne bokku ñoo sax yow yow ngeen foog ni gars yi dañuy xeex benn kese njaboot ka la ñuy wëri Pape Sané le journaliste wax na ko buñ ko jàppee njabootam lañ topp ji njabootam newuñu sax fii France Europe ñi leen di embuscade njabootam wax na ko démb dégg ngeen ko démb dégg ngeen ko mu leen man lu ma ci metti du man sama njaboot sax lañ ko topp ay xale yu ndaw yu laalewul ci dara lañ topp ay nit yu qui n'ont absolument rien à benn nit munoo cee jot nga dem topp njaboot ga topp frère ya topp sérieux wër kër gi di dafa wëndaaloog ak oto di taxawaal ci bunt bi di menacé kenn xamul bu waa kër gi génnee gis la nga taxaw sa oto nit yi fees fa dell ngay wër kër gi di xool mais pourquoi nekkuma foofu je ne suis pas là-bas je suis ici kiy wax fii la nekk Canada boo leen mënee ñëw leen Canada kan ngeen di wëri nekkul Kaolack te ñu fa nekk amul kenn koo leen mën a wax ku mu mën a changé loo lu tooñ ay ñu deful dara defu leen ko lu dul tooñ naate ñi ngeen di tooñ defuñu leen dara xamuñu sax nu mbir ya demee da ngeen di ñëw gaari seen oto di xool di nappaate que pour ne taxawaal ba mu neex leen dem seen yoon pourquoi ki ngeen di seeta ngi nii di wax ak yéen bu lay ay góor ngeen ñi me ngeen ñëw leen maa ngi Montréal Canada xam ngeen fu ma ne bàyyi leen ñi ngeen di jéem a maltraité que napp ka kii faalewuñu leen en tout cas le peuple sénégalais doit être très très très très très résistante résistant du moins le peuple sénégalais dañoo war a taxaw dañoo war a waajal seen bopp dañoo war a waajal seen bopp bañ a jàpp affaire bi caaxaan bañ a affaire bi foo bañ foog ni Macky Sall daf ñuy bàyyee mbir yi bañ a foog ni Macky Sall ñu koy may bu for yombee fëgg ja sëgg jafe bu for yombee sëgg jafe ñu waajal suñu bopp yokk fulla yokk fayda fas suñu kanam fas suñu suñu fulla xam ne ñun du ñuy ay xale yuy foo régime lañuy bëgg a daane te régime kenn du ko daane daanelee ci naxasaay naxasa xandan pour muy leer salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu peace and